ɗo diine yàlla def na fi kilifa yi diine yu baax allah waɗi ɗo ardiɓe diine moƴƴuɓe yàlla def na ñëpp a bokk o wi allah waɗi yimɓe fof jiidi yàlla def na fi sutura allah waɗi ɗo sukura alal amu fi o wi jawdi ni ala ɗo bom
alal amu fi o wi jawdi ni ala ɗo bom xam-xam bi bariwul o wi gandal ngal ni heewani waaye bëgg yàlla gi dëgg la kono yidde allah nde kam ko goonga e men gëm yàlla gi dëgg la o wi jabde allah nde ne ko goonga e men bëgg yonent bi dëgg la yidde annabi nde ne ko goonga e men bëgg sëriñ si dëgg la yidde seeɗanaɓe nde ko goonga e men bëgg lislaam dëgg la yidde l'islam ko goonga e men wërsëg bariwu fi o wi jawdi ah, an sigi heewani ɗo waaye lu ñu am ñëpp a ko bokk o wi kono kala ko gooto e men jogii kañum heddiɓe ndendi ku ñu gis bokkal kala mo jiiɗa e banndiraaɓe ma teññaa ɗum e ko jogiɗa ko lu ñu am bokk ak ñëpp ko dañɗen fof ndendeni yimɓe fof
waxtaan wax dëgg yi ca la lépp loo xam ne teraanga la gu ñu jiiñ waa Sénégal alhaji Abdoul Aziz Sy Malick xalif généralu Tidiane yi wax na ko ci conférence bi nii waa Sénégal bëggantee ni ñu bëggee réew mi ni ñu bëggee diine ji lépp wax na ko li nga xam ne it moom la ñu mën a nekke ba ñu war ñoo tuddee kuy dimbali yàlla moo di bëggante jéem a sàkku xam-xam te bañ a ànd ak génn rëy ndax nit mën naa am lu bari ñàkk ko ndax rëy wala defe ne yaa gën ñu ci des te it dégg ngeen exemple bi nga xam ne wax na ko ci conférence bi ci kilifa gu amoon xam-xam te yaakaar ne moo ëppale ñëpp moo gën ñëpp ba tax mu xaw a yàqule suñu konte gëm gi nekkoon ci biir xolam lu jiitu bi mu laata jéem a réer waaye ba tey alhaji Abdou Aziz Sy Malick noppawul di waxtaan ci ne ñëpp a nekk benn te loolu ñi mu ci yaakaar moo di ñi am ay taalibe ay nit yaakaar leen toppaleen ngir yàlla ak yonent ba toppaleen ngir ñu gindi leen ci li nga xam ni moo di yoon wi jub di yoon wi nga xam ne ku ci jaar ëllëg dajeeg yërmande yàlla te ñooñu ñoo di sëriñ si sëriñ si nañ jubale nit ñi o wi ceernaɓe pewne almuɓe ɓe yàlla juboo la digle allah wii ko yon kawru yàlla juboo la bëgg allah yiɗi ko yon kawru di tax ngeen xam ne yàlla juboo la bëgg o wi ko holko gandirton allah ko hawrude yiɗi ñi yàlla juboo ak ñi juboog yàlla fii rek la ñuy teer ëllëg li ma leen di bëgg a wax o wi ɓe allah hawri ɓe eɓe hawrani ɓe o wi koye nokku goto tan kamɓe fof hakkunamaɓe jogori seerde janggo ɗo yesso allah ɗo dara des dara lii rek la o wi ko ɗum tan ko jogori haalde ko radiyallahu anhum wa radu anhum ñu gërëm yàlla yàlla gërëm leen o wi ɓe beele allah allah weleɓe allah yettaɓe ɓe jetta ɗum ndax def nañu li yàlla bëggoon o wi sabu ɓe mbaɗi ko weli allah kamɓe yimɓe wannoɓe koyli allah ɓe mu gërëm leen allah ne yettiɓe yàlla dugal na leen ci këru teranga allah nanniɓe galle teddungal o hono aljanna ñoom it ñu gërëm yàlla kamɓen ɓe jetta allah te yàlla xam la ne li- ki ki am loolu fu muy jaar ba am ko o wi allah andini mono daña ɗum ceerno o e almudo go holɗo ndewata ha daña ɗum wax na leen koy o haalaniɓe ɗum ni radiyallahu anhum wa radu anhum radiallahu anhu wa radu anhu radiyallahu anhum radiallahu anhum wa radu anhum wa radu anhu lu koy maye o wi holko hokkata ɗum zalika ridallahi ci nit ñi ak ridal naas yi ci yàlla o wi weleede yimɓe ɓe e allah e weleede allah e yimɓe ɓe ka kana koy am o wi hol dañowo ɗum liman xashiya rabbahu on kulɗo allah yal nañ ko yàlla may yallah hokku en ɗum
góorgóorlu leen tinnoɗe na ngeen wàcce bakkan yi o wi celline pittali mon ɗi gis eh, toxal na benn hadis ci Ceerno laa ko jële o wi o wawi hadis goto o reni ɗum koye ceerno saydou o ƴetti ɗum mu ne o wi
aji rëylu o wi mawni kiniɗo ne ku rëy mawni kiniɗo gunóor boobu ngeen xam ci nawet o wi eh, hono kowoyen tokson kon ngannduɗon e ndunngu kon mu dem ci sobe yi o wi tawa kadi ne yehi kadi e e ko yimɓe jahata dow wuro ko di ko bërëm ba mu ina talla ɗum kowoje talloje ndunngu ɗe mu topp ci di ko ina rewa heen tan no talla talle ɗe jiyato ndunngu ɗe jëm min al jili alladi yudadiu alqura bi anfihi nee na ku rëylu o wi mawni kiniɗo gunóor boobu le moo la ëpp daraja ca yàlla o wi hono howayre nde ngannduɗa ina yahata goppe yimɓe ina waɗa ɗum talle o wi mawni kiniɗo nden ɗon howayre ɓurma martaba e allah te itam nee na ñu rëy juróom benn yëf a koy jur o wi mawni kinaare wiyama ko gueɗe jeegom jibinta ɗum ko ɗum addanta neɗɗo wonde ɗum moom la borom moom la téere yi wax ɗum defte ɗe kaali soo demee ca charh al axdar yu sa yeehi to sara alahdariyu omdatul bayaan umdatul bayan daa ko ca fekk ma taw toon mu wax ne wi juróom benn yëf gueɗe jeegom mooy jur rëy ɗum jibinta mawnin mawnude hoore mum xam-xam bu yàlla diigul o wi gandal so allah hokkima ɗum tawi allah ala to nder to daraja ju yàlla diigul daraja allah hokkima daraja mawɗo tawi allah kadi ala to nder to wërsëg wu yàlla diigul arsike kewɗo allah ala to nder to mbooloo mu yàlla diigul dental kewgal allah ala to nder to am am bu yàlla diigul o wi jawdi kewdi ndi ganduɗa kadi allah ala to nder to juddu bu rafet bu yàlla diigul ganduɗa kadi ko moƴƴuɓe jibinma kadi kono ɗum fof allah ala to nder to mooy tax nga dóor sa dëng o wi ɗum waɗatana fiitade becce ma man diwama jur min kaari jibinimi wala maa fi raw walla min dariɗo wala maa fi ëpp mbooloo walla min min ɓurɗo dental maa fi ëpp wërsëg min ɓurɗo arsike lu ma wax ñu def ko ko kaalmi fo yimɓe mbaɗa lu ma bëgg ñu def ko ko jinmi ko waɗe te itam o wi kadi alam yaalam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa man huwa ashaddu minhu quwwatan o wi mate on ganda allah wiye deftere muɗum nde kamɓe bakkotoɓeɓe halkino ɓurɓe ɓe donte e ɓurɓe ɓe jawti e ɓurɓe ɓe tembe e ɓurɓe ɓe gande e foof xarona ëppon ñëpp alal o wi karuna gondiɗo annabi moussa o ɓurno yimɓe fof jawdi waaye alal jaa ko alal o wi ha- holko halkimo halkimo ko jawdi kewndi du tey ha ɗo gonɗen ɗo dox na kemtalayal taxawaayu doomu aadama yi.
ñalawma fof omo yaha e leydi ko fotino darde neɗɗo ba mu faade less ba ba ba- ba ba muy sob sama borom mu dindi ha nde ñi- weeli allah foof nde allah fuɗɗo ittude ɗum yonti yàlla Souleymane annabi souleymane dafa wax jinne yi o wi jinneji ɗi ne leen yëkkati leen ma ƴette kam ñu yëkkati ko ɓe nawimo ba mu dégg xalima ya hawa nani kuɗi gonɗi dow ɗi na ñuy bind no mbindirta no dillirta ni ca lawhul mahfuus to lawhil mahfus to mu ne wàcce leen o ma wi telline kam kadi ñu wàcce ko ɓe tellinimo ba ca suuf li suuf ha leydi jeeɗe ɓiiɗi ba ca sara ha less leydi jeeɗe ɓiiɗi mu dégg fa ha to sara to o nani toon mu dégg fa o nani toon luy wax ne ko wiyata law kaana fi qalbi saaxibikum misqaalu xabbatin min kib min xardalin min al kibri la xasafa allahu bi seen xolu kii ngeen di yëkkateeg di wàcce o wi ɓe nani toon hunde ne wiya sinno wonko wonno e ɓernde mo gonduɗon o ene wiyon nawe kam ha dow ne nawe kam ha less su fekkoon ne lu day ne peppu baket mi ngi ci xolam ci rëy o wi sinno koko fotino abbere mana paggiri e mawnikinaare no wona e ɓernde makko kon sama borom dana digal suufi juróom ñaar mu wan na ko ma allah wi leyɗele ɗe jeeɗiɗi yo moɗmo kanko e moɗon pop
rëy amu ko yonti yàlla Moussa annabi moussa laaj na sama borom lamdima allah ne ko yàlla lan nga gën a kontaan ci sa jaam o wi allah holko ɓurɗa weleede e jeyaaɓe maɗa heen mu ne ko lay amul ci sama pays bi o wi ko alaa ɗo e batam hee ko ɗum ɓirmi weleede ya rabbi ma dalika o wi holko woni ɗum mu ne ko mooy tanazzul ak tawaadu o wi yankinaade e lesɗe kinaade képp koo xam ne kii ci jaam yi wàcce nga sa bopp o wi kala mo ngannduɗaa e jeyaaɓe allah hee a yankiniima sabi allah ma gis nga woyof o wi njiimi aɗa hoybini hoore ma a waɗaani hoore ma hay hunde danaa la yëkkati mami ƴette danaa la teral mami teddine ku la teralu li hay mo teddinaanima ni man danaa la min kam mami teddine kon rëy amul njël o wi ɗum noon mawnikinaare hoto nafoore mum woni te taxaw leen ci defar seenu bopp o wi yo ndaro e toppitaade hakkunde en ɗemooɗon ah Seydina Jibril o wi seydina jibril ngéeju woon la nekk doomu aadama ngir juróom benn yow o wi o yiɗino wonde neɗɗo ɓi adama e sabu gueɗe joyyi joyi goɗe jeegom ah juróom ñaari yow e gueɗe jeeyiɗi
benn ba hen gueɗel moo di toog ak borom xam-xam jooɗodade e gando benn ba hen gueɗel moo di jox ku xiif mu lekk hokkude kayɗuɗo ñaama benn ba gueɗel moo di fekk ku mar nga jo- mu jox ko mu naan yiide ɗom ɗuɗo dokka ɗum ndiyam yara benn ba gueɗel moo di julli ci mbooloo julde dental benn ba gueɗel moo di seedi ku feebar ƴewde ƴeewoyde mo sellani benn ba gueɗel ju gunge ku dee ba ñu suur ko jaaha e janayse ha neɗɗo ubbe ha gasna bi ci des keddingel ngel fekk bokk gu yàqu tawa bandiraɓe ina bonodiri ine ceerti mu di ca taxaw daroɗa hen ba defar ha pewna taxoon na o wi ɗum no jeeno la ko ca yàlla xamal ci tuyaaba ju rëy allah no andinimo hen kanko jibrilu balaji muɗum no poti mawnude ni mu bëggoon a nekk di doomu o aadama wi min dey ha ɗum ɗo koni wayi mbeɗa yinno wonde neɗɗo te yëpp defar bokk ci o rek wi foof noon kam fewnude en ɗam ɓuuri hen forde dafa am benn waay o wi won waji goto bu ñëw fekk benn kilifa toog o wi o tawi gando o- goto e halifaɓe tan no jooɗi waa ji ñëw ba ca kilifa ga o wi waji onon ari ha e kalifa he ne ko man de dama la soxla o wi min de mbeɗa sohluma te bëgg a wéet ak yow mbeɗa yiiɗi yewdude ma buur ba ne jóg leen o wi lamɗo o wi wonɓe ɗon ɓe jeehe bàyyi leen ku mu wax soxla gacce o haala haaju makko su noppee ngeen dellu so so gasni gar toon gaañ a jóg dem ɓe jeehi kamɓe wondiɓe ɓe waaj a def nii waaji o wi ni comti mum bëgg a toog yiɗi jooɗaade ko déedéet taxawal o wimo ala ba daro ma- tan ba ma wax la samay charte haa mi haalanma sarɗi e jam min mu ne ko bismillah o wimo bisimillahi mu ne ko bu fi ñëw o wi hoto ar ɗo pour tagg ma pour yettudemi wala nga yëkkatil ma sa walla ƴettudemi fittande maɗa mawninami maa la gën a xam ndax yelloo naa ko wala déet min ɓurma anndude ko kalta hen ko beele mbeɗa hanti hen walla mi handani hen ñaareel bi o wi ɗimmel ngel bu fi ñëw di ma rambaaje kenn man bëgguma rambaaj ndax yàlla bëggu ko o wi oɗo arane aɗa rendinami hay gooto saabu allah yiɗa ɗum mi yiɗa ɗum waaje demoon na bay toog o wi waji o yaano kono wiyana jooɗo mu daldi ne nii o habti o dari ne ko ayazanu lil amiru bil insirafi ndax kilifa gi digal ni ma pour ma dem mu ne ko yaa ndi woon sa bopp wawma la o wi jooni noon o yinno ko jooɗade o anndi ko yinno haalde ko o haɗama ɗum o wi jooni noon a yawiri kam yomi yah o wi an adduno hoorema
am na benn kilifa o wi won kalifa gooto boo xam ne taalibeem daf ko eh, ba- eh, kenn ci njabootam daf ko tooñ o wi gooto e e kalfateeri makko tooñimo
ba ñu waxee mbir ma ba mu foor o wi nden haala ka haalama haa mawni no feewi waaje tiit o wi almud euh, waaji o huuli toñnoɗomo o ne mi ngi dem ndax tuuba di kilifa xalifa ba ci biir mbooloo mi o wi omo tuubuno e khalifa o e nder dental he nee nañu mamun la tudd o wi on wiyete ko mamoun ba nga xamee ni ñëw na nden o ari ba ñëw dugg ca biir mbooloo ma hawanaade e nder dental ngal kilifa ga yëkkati boppam o wi kalifa o eh, ƴe- eh, ɓamti hoore muɗum ak di ko gis yiimo ne ko xif makaanaka o wiimo daro darde ma imma yaminun géñ da ngay géñ si rek o wi wonde joni noon garɗa ko ma woni aɗa wonda aw uzrun o wi walla ko aɗa gantina aɗa haala gantu faqad wahabtuhuma laka o wi ko foof mi rokkima mi yaajimama ngéñ li ngay géñ ak ngantul li yëpp may naa la ko o wi wonde ko ko kalanɗaɗo wiya ko ɗum ko ɗum walla wondan o wi fof mi yaajimama gila nden mi hokkima la tazalu tusiu wa uhsinu o wi wonde on ceerata oɗon tooña minenne mbeɗa yaafo tan
ba ni ma bëgg ba sama euh, njëggal ci yow melal la ni ma bëgg o wi ha ko- eh, jaafogol jaafotomami ngol waya e ma no jinmi ni li tax rambaaj baaxul o wi ko waɗi neɗɗo mon yaano sot sottana bonna hakkude yimɓe moƴƴani danaa di wax ne toujours feeg ñu ngi rambaajante ci kilifa yi suñu mbir du baax ndax yàlla du ànd ak ñun o wi omo haala ñande fof mo wiya ɗon ɗo eɗen jaha eɗen eh, kalmodira e nder koye meɗen e ceernaɓe e laamɓe o wi hakkude men moƴƴata saabu allah yiɗa ɗum yonti yàlla Moussa dañu mas maral o wi annabi moussa hokkere meɗi wadde mu dajale nit ñëpp o rendini yimɓe foof ne nañu toroxlu ci yàlla ndax mu may ñu o taw wi enen fof nden nden jankino ɗen ɗo yeeso allah ɗo beele ma allah hokku en toɓo ba ñu dajee nden ɓe kawri yonti yàlla Moussa toog annabi moussa jooɗi sama borom ne ko Moussa an jomiraɗo wimo moussa mu wuyu ko o nooti mu ne ko yéen a ngu daje de o wi onon de oɗon kawra nga di seenub yonent aɗa an- ka annabi maɓɓe ngeen nar ma jublu di ma ñaan oɗon jogoto huccidde am oɗon ñaagomi waaye li ngeen bëgg duma ko def kono kon eh, ñaagotoɗanmi komi watta ɗum mu ne ko lu tax o wi ko waɗi on dokk a rokkata min komin ñaagoto ko mu ne ko dafa am rambaaj bu nekk ci seen o biir wi won naafigue woni hakkude moɗon mu ne ko yàlla xamal ma rambaaj bi o allah wimo haalanam on boome maɓɓe ndax ma génne ko saabu mi yaltinamo e dental he sama borom ne ko ma tëralëf di ko def allah wimo min mi haɗa hunde hami gasna kadi mi rutto mi waɗa ɗum kon ma rambaaje di o wi wonde yéen kay dem leen ngeen am ne doo tuub rek o wi onon kay jeehe tan an e makko fof mbeɗa andimo jeehe tan tuuboye mu ñëw wax leen ko o ari o haaltan ɗum yimɓe ɓe no allah haaldini ñoom ñëpp ku nekk rëccu moni fof e nimsi tuub tuubi ñaan ñaagui taw ba dal di sóob e kan toɓo so- eh, hen e maɓɓe am na benn kilifa o wi won kalifa goto bu baax la woon ko moƴƴo wonno am benn way bu dend ak moom o wi won neɗɗo goto no wonno e sara makko daan ko jaxaseeg nit ñi rek ina renndemo yimɓe ɓe tan am benn way bu baax won neɗɗo gooto moƴƴo kadi goɗɗo boo xam ne kilifa gu mu masaantal kala kalifa mo meeɗi wondude daf lay digal lu baax o haalantuma koko moƴƴi ku la tooñ o toñƴoma mu ne la muñal o wiima an kalifa o muñ ku def lu bon baɗɗo ko boni mu ne la baal ko o wiima yaafomo ku soxla o wi cohluɗo mu ne la dimbale ko o o wiya wallumo benn waay ne goɗɗo ne wi kii kat mi ngi bëgg a nangu sama place ci buur bi o wi o kat jogori ko ƴettude place am e laamɗo he ndax gis naa toujours buur bi di wax ak moom sabu mi yii ñande fof laamɗo o no haalda e makko kon nag danaa ko tëralal plan ndax buur bi dàq ko o wi min waɗ plan jooni hawriɓe yóbbu ko këram o yonayimo galle makko togg yàpp o o defi tew def ca soble ak laaj bu bare o waɗi heen soble e laaji haa heewi haa heewi te fekk itam o wi tawi kadi bi mu ko defalee loolu nde waɗanimo ɗum nde dal di ko jiitu ca buur ba o arditoyimo kadi to lamɗo to fekk bi mu lekkee ba noppi nde o ñaami haw gasni nee na ko dëkk yow kat nekk nga koo xam ne ki bés bu nekk da ngay jege buur bi o wi an kat ka neɗɗo mo ganduɗa ñande fo aɗa ɓattituno lamɗo o waaye tey kat soo dee waxanteeg moom defal nii ndax moom bëggul xeetu soble ak laaj o wi hannde noon saɗa haalda e makko suum hunuko ma sabu o yiiɗa mana luuɓeki soble e basalle daal di ñëw ca buur ba ne ko diw day yaa ngi ko jegeeg ci sa bopp waaye fu nekk wax na fa ne da ngaa amee xetu gémmiñ ba tey soo ko seetloo daa gis mu def nii o wi o yaakini kadi o adini neɗɗo o o wi laamɗo kaalide e ñande fooɗa haalda e makko kono hannde ma yii so ari mo suumo huno ko makko ekkine makko sabu o wi aɗa jogii luuɗoki ko ngannduɗaa kanko o yiɗaa ɗum mu ne ko aha o wi eyi ah, mu ne ko daa ko gis o wi ma waar jooni njiya ah, mu daal di ñëw o wi neɗɗo o ari xuus ba agsi eh, juwi yimɓe ɓe haa yetti daal di fe- def ni mbubbam o wi tan wiini suumi jox ko loxo tottimo junngo sëgg rek tan turri su dee wax du dindi mbubb bi so ha somo haalano ittita wutte o buur bi yëngal boppam o wi laamɗo o dillini hoore mum waa ji defe ne kalaame bi jàpp na o wi laamɗo o dillini hoore muɗum waaji salminoɗo o ne sikki kalaami o jaggii han kadi fekk am na buur yi xam nga dañoo am ay commandant ki ñoo xam ne ñooy nekk ñoo amee finance bi ak ñoo xam ne ñii ñoo di reykatu nit ñi o wi aɗon nganndi laamu fof no jogii jogotooɓe kaalis e warooɓe e waɗooɓe huunde fof kala ko yamii tan taata kono ɗoon ku yàlla musal rek nga mucc mo allah danndi tan daɗata buur bi dal di bind leetar o wii laamɗo o winndi leeteer jox ko ki nga xam ne kii mooy ki defoon noonu gémmiñam o wii totti mo ngannduɗaa kañum suumnoo huno kumum o bind ca biir leetar ba waɗee leeteer hee ne waa ji su ah ki amee leetar bi su dikkee na nga teqale baatam ak boppam o wii jogiɗo leeteer o so yettiima aan baroowo o seendu hoore nde e daande nde waaye mu juum nag ci adresse ba kono noon o juumee adresse hee bin adressé ko ministère de finance ba o faannoo ɗum koto baroowo to kanko laamɗo o winndi nder to dow to noon o waɗi heen to ministére jogoowo haalisaaji to ba mbooloo ma tasee nden dental ngal seertii waa ji amee leetaram waaji on jogii leeteer mum di dellu ci kër njaatige bi ina faati galle njaatigi mum te mooy ki ko boole woon on woni ko dendinnoɗo mo e laamɗo o mu gis mu amee leetar o wi omo jogii leetere mu ne ko waa ma gis sa leetar o wiyomi leetere ma mu jox ko leetar ba o tottimo leetere o mu gis ñu adressé ca ministère des finances o wi waɗa heen ko ministére de finance kanko dendinnoɗo o de mu ne ko yow day buur daf la may alal o wi an de laamɗo hokkiima jawdi ndax kii ku mu ko jox daf lay jox alal o wi ɗum ɗo kala mo o hokki o hokki ɗum ko jawdi waa ji ne ko man bi may ñëw ci buur bi yàlla ma fi andi bëgg ko waaye alal soxlawu ma ko o wi min addunomi ɗo e laamɗo o ko allah kono wonaa jawdi mu ne ko loo xam o wi jooni noon ko ngannduɗaa heen mu ne ko man day mën naa la ko jëlali o wi addu min dendinoɗo wi addu leetere o mi addunoye ma jooni mu ne ko yóbbul soo ko soo demee loo ko jële nga fab o wi naw ko so a yehii kala ko dañƴaa toon naw waa ji daal di fanaanoo leetar ba o wi waaji o waalde leetere mum haa weeti ca fajar subaka law fajiri tan mu daal di fab leetaram o ƴetti leetere makko kanko dendinoɗo o takk fasam o haɓɓi puccu makko dem ca ministère ba o yehi to ministére to mu jàng leetar ba ministére o janggi leetere o wax ko ne ko wiimo daf ci wax ne o wi heen ki amee leetar bi jogiiɗo leetere o su dikkee na nga ko rey so ari ya war ɗum mu ne ko du man o wiimo wona min mu ne ko defu ci benn tur o wi o waɗani en inde hay gooto koy waaye te yaa ko andi kono ko an addi kadi te ndigalu buur ko laamɗo kadi yamiri wat tan dal di ko rey oy tan o waɗa ɗon ɗon kanko ɗen ɗinno kadi ñu toog ba am ñaari fan o wi ɓe njooɗi haa timmi balɗe ɗiɗi gan nga gisul waa ji o wi koɗo o yiyaani njaatigi muɗum buur bi gisul bëkk néeg bi gisul gan o wi laamɗo o ne yiyaani batulumum o yiyaani koɗo o waa ji toog ba mu yàgg mu ne man o wi waaji koɗo o jooɗi haa juutoyi min dey xañ na waa ji dafa ñëw te agsiwul ci man wata waaji o arti kono ar yettakimi tan min comme que mooy sama njaatige haade kanko woni jaatigam te ñun ñëpp place buur ba mooy suñu place minen fof min kawroyde kono laamɗo to naa fa dem seeti ko yomi yaado ɗum ƴeewoyam mu ñëw rek o yetti tan fekk buur toog o tawi laamɗo no jooɗi ñëpp ba nga ko wër yimɓe fof no taarimo muy wax ba mu yàgg omo haala haa ɓooyi mu siggi o o tutti kanko laamɗo o gis waa ji o yii koɗo o ne ko kaay o wiima argay mu ñëw o ari mu ne ko yow o wiima aan ana lettre bi ma la jox hoto leykel tottunuma mi o woni ah mu ne ko bëkk néeg bi o wi wonde batuloma o moo ma wax ne alal nga may jox ma ne ko man bëggewuma la alal yàlla laa la bëgg ak fonk la moo tax may toog ak yow waaye du alal mu ne man naa ko yóbbu su ma ci jëlee lëf ñu séddoo ko ma ne ko loo ci jëlee fabal ma may la ko o wi leytere o min a kettinomi ɗum njaami njaadi kam o wi wonde mbaɗɗa heen ko jawdi mbimi noon min wona jawdi gardunomi ɗo wona jawdiji ɗiɗi mami kanko o wi yo totte o addo e jawdi ndi o wimo yah kala ko dañƴa toon sa yeehi naw min mi yiɗa ko allah tan jiɗirnomomi ñu gindi konte ne o wimo neme ɓe foof noon andi ko wonno ɗon ko mu ne ko fundi gonnon ɗon ndi iwi mu ne ko kon folli naa ñëpp dir toog ci sama wet O loolu wi- digal dana ko def xam naa ne doo ma digal lu may gaañ mukk te dana jubak sama borom o wi kala gonno ɗo hannde mi yantini ɗum mi ƴettima mi waɗima e saram kala ko jamirɗami mami wat saabu somi waɗi ɗum mami hawre banda men loolu ngeen dégg yëpp alhaaji abdou aziz si malik wax ko ci conférence bi li mu ci jublu lépp moo di rek nit ñi nekk benn bëggante jàpp réew mi te taxawal lislaam te bu ñu yéenante lu rafet lu rafet rek lay jur ndax yéene néeg la borom rek a cay fanaan
képp ku dugg ci gi- mbiru jullit yi di gëstu seen xabaar di ko yóbbu ci buur yi o wi kala mo ngannduɗaa ooɗo ina naata e ndeer julɓe hee ina sunnoo ɗumen no ƴeewa habaruuji men ne nawana ɗum laamɓe ɓee yàlla ne dana daje yow o wii allah wii ma hawre ma janngo kawrugol ngol ngannduɗaa ma nimsu yàlla wax ne allah wii ijtanibu kasira min azanni inna bada zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab baadukum baada ayuhibu ahadukum an yakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuhu wattaqu llaha inna allaha tawabu rahim yàlla ne o wii allah haali e deftere muɗum heen na ngeen yéen ñi gëm onon jaɓɓe allah
yéen ñi gëm ijtanibu kasira na ngeen di teet lu bari ci njort o wii onon jaɓɓe allah
ndax lenn ci njort bakkaar la o wii won jikkeeji keewɗi ko bakkaat bu leen asan sekkarante wu ci seen biir o wii hoto yeene kadi oɗon mbaɗa asan sekkeraagal e ndeer mooɗon bu leen jëwante o wii oto ñohonndire ñu ne jëw mooy lan o wii holko woni ñoore ñu ne jëw kat ɓe mbii ñoore koye moo di nga fekk li mu doon def te jaaduwul nga tëju di ko wax o wi tawa neɗɗo ne waɗa hunde ko ganduɗa wona laawol Wayi.
yaha noon annen aɗa haalta kooku mooy jëw o wi ko ɗum woni ñoode waaye waxuñu la nga waxal ko loo xam ne di defu o wi ko ganduɗa noon kam ɗum ɗo waɗani boom o wi ɗum kay wona ɗum wiya kooku mooy buxtaan o wi ɗum ko feppidade mooy duural o wi ɗum ko eh, mana feppidade tan tawa wona gonga li ñu la tere o wi holko kaɗaɗa mooy li muy jëfe ko waɗata ko nga tëju di wax ci deram dara cokoɗa aɗa e nder suudu tawa tinani aɗa haala e ɓe- e makko ko moƴƴani ci li muy li muy jëfe e gueɗe ɗe waɗata tawi ko kanko waɗi am na benn waay bu ma sa gént o wi won waji goto meeɗi hoydude ñu tëral ko benn mbokkam tëralal ko benn mbokkam o wi o lelnana goto e bandiraɓe makko ɗo yeeso makko ɗo jox ko paaka ne ko dogal lekk ɓe tottimo paaka ɓe mbimo Ah, wona ɗin- kaƴe makko ñaama mu ne lii law mën a amee o wi hono ɗum wonirta ah ñu ne ko doon nga ko lekk démb rek ɓe mbi hanki tan aɗa ñaamamo imaam Junaydi ko imamul junaydi ñu ne ko lekkal ɓe mbimo ñaam sama borom moo wax ne a yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayitan fa karihtumuhu ni ngeen bañ a lekk seen yàpp mbokk mu médd wala mu dee na ngeen ko bañ a lekk noonu yi deru julli dina ngeen ko fi bàyyee noonu bu leen ko laal o wi no goto e meɗen mayrata ni no gañirten jimde mumen taƴa tew miɗen ƴakka no ciicirten ɗum ni ko noon mbiɗa yen ciicir kadi ñohondirde su dee ci wàllu tijaan yi nag tawi koto banggue tijjani en koɓe noon cheikh tijaani radiallahu taala anhu cheikh sidi ahmed tijaani radiallahu taala anhu déggal seen responsabilité o se sayidi ahmed tijan radiallahu taala anhu kañum koye ittitini han kadi responsabilité muɗum wax na charti talube o wi kanko o haali almuda no foti waade waaye it bu mu tax muqaddam yi defee ne ñoom it waxul ci ñoom dara de o wi almuɓe fof ɓe wiyeede no poti waade a- sernaɓe mukaddame ɓeene hoto cikku kañumen ala ko kaaldade no poti waade ana lu charti talube almudu holko woni sarɗiyeji mum talube bi almudu o liibar na ina liibori ɗi ci seet kenn ci muqaddam yi ƴeewa goto e mukaddameɓe he ba mu doy ko taw ƴeewa ha anda ko oɗo yonimi mu dem ca moom wëllëranteeg moom ci mu jox ko tariqa bi jaha to makko nangodira e makko aadi o hokkuma lawol cheikh seydi ahmed tijan radiallahu taala an ki koy jox tariqa bi o wi hono mukaddam ne mo hooli tottowomo lawol ngol o bu mu ne sama sëte o wi hoto wi ko tanam wala sama jarbaata walla ko baɗam wala sama nangama walla ko ɗum ɗo wone am ba ta ko joxe charte yi o wi maw haalanam sarɗiji ɗi ha timma ba mu nangu ko almudo o kadi jaɓa kadi mu jox ko tariqa bi o hokkamo lawol ngol bàyyi ko Cheikh Sidi Ahmed Tijani sa an mukaddam o sa hokkimo lawol ngol kadi accitmo cheikh seydi ahmed tijan radiallahu taala anhu radiallahu taala anhu radiallahu taala anhu kontóor o wi kontoruji lampaɗiya moo amee lamp yi ci kër gi o wi ko kañumen jogii lampaji gonɗi nder ɗi waaye suñ ko branché wul ci usine o wi kono noon so jokkodiroyani to machine lampa to lu installation bi rafet rafet o wi ko installation o moƴƴi ko pop ak lu kontóor bi bees bees eko compteur o hesɗi ko pop soo daanee lay du tax o wi hay sinno tawina ñoƴƴi compteur o ne huɓɓata haade jokkoyaki to lampa to tan jeygol iwat kon nag muqaddam yi noonu la ñu demee ci diggante seen diggante ak cheikh ak taalibe yi ñoonu la ñu demee ci diggante cheikh ak yonent bi ak taalibe yi o wi mo kaddame ɓe ko noon mbayno compteur waye lampa ni ko noon mbay hakkude chef tidiani almuɓe e hakkude chef tidiani almuɓe e nelaɗo sallah sallam muqaddam bu ci wóolu sa bopp o wi kala hen mo kaddam kooliɗo hoore muɗum e dokke mum ba tax nga bëgg a couper sa diggante ak cheikh Sidi Ahmed Tijani ha jiɗɗa kuppude hakkude ma chef seydi hamada tisani soo yóbbu nga xam ne sa diggante ak yonent bi couper na te ku digganteem ak yonent bi couper digganteem ak yàlla couper na sa yiɗi ganda hakkude ma e ene laaɗo allah sallah e cheikh tidiane kuppi hakkude cheikh tidiane e maɗo kuppi hakkude ma e annabi أسرى بالله وتعالى طيب أجيء برا من غير جسم أفضل بدل وهكذا ذكر شغران إلى سلم
أنا رفيق الروح باستفتاح أهل سماء البيبان واستبشروا من قادم فدم نوح ثم هارون موسى بالرحم على البراق صار في منتهى له موجة الخلاف فراد الجلة أنا من مرة عند يوسف عبد الرحيم بآدم مرة يوسف وخر نوح ثم هارون موسى والعبد الرحيم بآدم مرة إيد يوسف وخر نوح ثم هارون موسى أبي الرحيم بآدم مرة هم هارون موسى والأبي الرحيم بآدم مرة ثم هارون موسى والأبي آدم مرة عيسى يوسف وخنوخ ثم هارون موسى والأب الرحيم صليا يا إلهي وجفيا أبدا أنا محمدا المختار في القدم